madame la ministre neen da ngay baayam di xaritam da ngay wéeruwaayam nag bu wér a wér li xam ak li ñu xamul da ngay wéeruwaayam bu wér a wér kon nee na dafa bëgg mu leer ñëpp ni dangay ngay baayam di xaritam di mbokkam di wéeruwaayam ñu bokk nag xaali ma jax ci kala kon nag bokk gi am na lépp waaye jaay na ko jënd ko taalibe kon sëriñ bi ngir guddal ngir ngir gàttal euh, ngir gàttal kàddu gi fi ñu war a dem bari na li ma la tënkal léegi ci jigéen ñi indi na ñetti tonni ceeb def ko àddiyee te xeeb ko lool boole ci àddiyeem jii di ñaari million xeeb na ko lool Mbakke nee na mi ngi ñaan ci barkib Sëñ Tuubaa yàlla yàlla fay la ndax xam na ne yow lu la waay jox joxu la ko yoon wi yoon wi la ko jox ndax lu la waay jox rek Sëñ Tuubaa ngi ci liggéeyal. ne mi ngi nuyu soxna Fat Jaane bu baax moom mi nga xam ne moo yoru wàllu njaboot gi ak jigéen ñi ne soxna Fatou sëñ bi ne mi ngi lay delloo nuyoo bu baax ni ko Cheikh Anta waxe léegi ci li nga doon ci dëkk bi ne nga doon ko ci yoon wi ne te doxe ko nag it bu baax ne Cheikh Madul Bachir ne ñépp xam sa ne ñépp a xam sa taxaw ci nit ñi kon ñi ngi lay sant bu baax a baax bu yàlla defee président jiital la dénk la liggéey bi ne da nga cee taxaw taxawaay bu rafet ne waaye nag nee taxawaay bi dala caa fekk ndax fekkoon na ngay jàppale nit ñi bu baax ne sa njàmbaar kat soxna Fatou moo tax ñu jox la liggéey bi rawatina nag lii mu wax léegi nga jëf ko ci waa kër Sëñ ne loolu moom am na solo lool ne liggéey bu rëy rëy la ne loolu kat soxna Fatou sëriñ bi nga ko defal ne yoonu murit it nga ko defal Sénégal géppit nga ko defal kon ñu ngi lay sant bu baax di gën a feddali sa diggante ak moom ne di la ñaanal itam ndénkaan liñ la dénk yàlla na la ci yàlla may ndam bu baax nga am ci ndam loo xam ni kenn musu ko ci am ne ñi mi ngi la koy ñaanal bu baax ci barkeb sëriñ tuuba ne mi ngi rafetlu sab taxawaay bu baax ci dëkk bi ak ci taalibe yi ak ci nit ñi ne lool rekk am solo ne moom ne li am solo ku ne ci kanamu nit ñi lu yor lu ñëpp bokk nga delloowaat ko ci nit ñi te loolu nag moom ni xaaroo ba nekk ministre dog koo def ne loolu yi dala caa fekkoon bu baax kon ñu ngi la ci soññi bu baax rek te tey am rafet njot si bu baax ci ni lépp day gën a jëm kanam rek mu ngi sant bu baax a baax jërëjëf